yu ñu fi yi ci centre d'empotage yi dëgg la lu ñu war a leeral la ndaxte centre d'empotage yi jubluwuñ ci ne da di dem ci industriel bi ngeen compter foofu déedéet li ñu ci jublu mooy képp koo xam ne yaa ngi liggéey moo xam da ngay yóbbu bitim réew wala da ngay jox industriel ñu xam lan nga joxe lii génn bitim réew tamit ñu xam ñaata la ak lan la bu ko defee ñun ñu am ay données ndaxte lii li tax mu yéex ndaxte bu leen fàtte président de la république novembre la joxoon ndigal bu fekkoon topp nañ ko ndigalu président de la république war a ñetti weer donc décembre janvier février waroon na paré mais djem nañ ba sonn amuñu fenn donné bo xamné ne dal na suñu xel ndax booy wax it da ngay wax lo xamné ne xam nga ko wala mën nga ko donc may jaajëfal wa direction du commerce intérieur ak service yi ñëpp tudd nañ ko Samuel ñëpp a ngi lay gërëm di la sant ak euh, monsieur le directeur ak division yi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi donc it ñu def liggéey bu mucc ayib ñàkkul bëri na coow mais àdduna noonu la àdduna la yàlla bindee mu ànd ak coow mais gis nañ ne daal daje am na nangu am na léegi nag liggéey bi am na lu ci des wax nañ ci centre d'empotage ci fonds de financement bi loolu yëpp ci yéen la des boo leen jëlee juróom benn ayu bés pour déggoo it day gën a yéexaat loolu leen gën a gaaw a déggoo ñun ñu gën a gaaw avancé monter dossier bi yóbbu ko ci ministre des finances yóbbu ko fonds bi ñu xool li ci war bu ko defee ñu def li ñu ci war a def boo leen déggoowee tamit balaa boobu centre d'empotage yi ñu taxaw ñu toog définir lan mooy centre d'empotage fan lañ koy defee naka lañ koy defee kan moo fa war a teew ak lan mooy njëriñ bi loolu tamit ñu def ko ñetteel bi moy sama yene moy bala ñuy signé waat licence d'exportation ñu tok fi ñu waxtaanee ko dama bëgg sénégalais yi gën am licence ke ñi joggé bitim réew lolu amna sañ-sañ mais il faut ngeen déggo ngeen organiser wu ndaxte man wax naa leen ko bés bu ne man maay jóg di doxi ceeb bi jóge Inde di ñëw Sénégal waaye boo fa demee exportateur indien yi duñ ko du bàyyi ak sénégalais yi donc fi tamit am nañ sañ-sañu donte indi suñu xarit lañ ne ñun tamit suñu exportation dañ ko war organiser ba ñun ñu gën ci am doole mais man duma exportateur SG du exportateur honorable député du exportateur yéen ay ferrailleurs yi yéen a war a organiser wu yéen a war a déggoo yéen a war a juboo bu ko defee ñun ñu mën a gis bool bu set yekk ci liñ ci yekk mais fekk nit ñaa ngi xiiroo di ŋaayoo te wuñu ku ci nekk am ku la téye naan la defal nii waxal nii déedéet defal nii bu boobaa tamit njëriñ li ñooñ di ko def ñoo koy jël rek bu ñu xamee lu ñu bëgg mbir mi yomb na état mën na ko mais bu ñu xamul lu ñu bëgg nag nit ñu tubaab yi daan def ak ñeneen ak ñeneen ngeen baal ma la ñuy def rek ñu xiiroo di ŋaayoo bu ñu xëyee ne Assane la bu Assane paree ne Karim la bu Karim paree ne euh, Cheikh la bu keneen ne keneen bu ko defee du ñu déggoo suñu biir léegi bu ñu déggoowul ñu ne ah conteneur yaa ngi fi il faut mu dem dëgg la conteneur yi il faut mu dem mais bu demee kan moo ci jëriñu du ñun donc ñun li ñu war mooy juboo d'abord bu ñu juboowee li Assane war a am Assane am ko li Cheikh war a am Cheikh am ko li du war a am Moodu am ko loolu la yàlla dogal wërsëg yi yemul mais ñu déggoo ku ne ñu tàmbali dara sénégalais yi jëriñoo mais fekk ñu ngi féewaloo fekk ñu ngi féewaloo ñeneen ñëw jëriñoo football sax dégg ngeen ko bu cafouillage amee keneen ay ñëw dugal bii bi ku ci bokkuloon ñun nag bu ñu seetaanee di def cafouillage rek ñeneen ñoo ñëw dugal bii bi ñu ne ci rajo bi di xuloo di xeex di yëkkati ay mbagg ñeneen ñëw di dugal bii bi rek donc loolu daal laa bëggoon ñu wax ko bu ko defee ministère tamit euh, gërëm na leen sant naa leen mais liggéey bi des na parce que bëri na loo xam ne war nañ ko def mooy étude boobu ak plateforme bi ñu tudd plateforme tamit jàpp naa ne état moo ko war a defal boppam du acteurs yi ñoo ko war a defal ndaxte ku ko defar ku ne bu la neexee tamit keneen du la wóolu ndaxte day jàpp ne sa bopp ko ko defal donc ñun ñoo war a jël les moyens ni ñu defaree yeneen plateforme ci yeneen secteur ñu defar plateforme boo xam ne koo xam ne acteur nga boo xëyee boo ubbee sa téléphone war ngaa gis ñaata ferraille lañ wàccee ci centre d'empotage bi lu ci ne fan la jëm kat moo ko andi ban njëg lañ ko fay ainsi de suite ainsi de suite nga xam ne lépp day leer donc kàddu yooyu laa bëggoon wax ko di leen gërëm leen sant euh, amul liggéey bu mucc ayib waaye nag loo gis dañ koy améliorer te jàpp naa ne juróom benni ayubés góor góorlu ngeen yombul woon mais yàlla def na am nañ résultat léegi nag li baax mooy ku ci ne ci sellu xelam ak sellu yéeneen bu tabaski bi paasee ñu daje. mën a continuer liggéey bi bu ko defee objectif yooyu ñu am balaa fin d'année ñu am ko mooy financement plateforme ak tamit licence yi ñu fexe sénégalais yi gën cee jëriñu donc loolu moo doon samay kàddu maa leen di gërëm leen sant wasalaam